kookooy sëriñ Mara Fall bu sëriñ Fallu docteur boroom géej gi borom nit yi ak jinne yi boroom rawaan yi day jël appel soo ko mënul jot woo ko whatsapp wala nga bàyyil ko message. jërë ngeen jëf mbokk yi tax na di ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax di ko sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak moom ngir lépp loo xam ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi kon dañuy wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ginnaaw xibaar bi nga xamante ne jot nañ ko muy nakaat ak tiis kon bu dal ci axlu làmb rawatina ci kaw mbër moom moome di Modou Anta ginnaaw bi ñu xamle ne kon ni ki tey moom Modou Anta moome di bàyyeekoo Thiès moo doon sans frontière kon dafa ñàkk waajuram bu góor waajuram bu góor woowee di wuyoo kon ci turu Baye Abdou Khadir Gueye moom lañ wax ne moom moo fi bàyyi bàyyi ko ginnaaw kon xibaar yi nga xamante ne jot nañ ko ñuy wax tawat ah, moom moo ko tëraloon suñu wayjur woowee ba mu daal di fi jaaree kon wuy ji boromam ci loolee kon ñu koy masaw bu baax a baax moom Modou Anta di ko ñaanal yàlla xolu muñ te it wayjuram bi nga xamante ne rek ah, moom moo fi bàyyeekoo suñu borom daal di koy yërëm atte ko ci yërmande tabbal ko janatul firdawsi bi jaahi nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye Modou Anta moom ci fàttali miin ngeen ko ndax moom mooy Modou Anta bu Thiès Modou Anta borom Thiès kon fan yële passé bëri woon na fi rek ak ki nga xamante ne moom mooy Alioune moom moomee yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté kon ci axlu làmb waral kon équipe Medina TV tout tout au nom euh, de l' équipe et du PDG ñu ngi koy yëkkati suñu njaal di ko ko jébbal di ko ñaanal yàlla xolu muñ jërë ngeen jëf.